yàllante tey jile may suukar nga def ma kafe mbaa sax ma nekk di sagru faw tey sa yaram yàllante tey jile may suukar nga def ma kafe mbaa sax ma nekk di sagru faw tey sa yaram man sopp naa la tel yi may wax xamal ni du fen billaahi yaa ma gënal saa bopp far ma yërëm man faalewul ku la mooy man sàkkuwul ku la mooy man awma aaju judul yow rekk ak sa ngërëm waajal ma ngir ku fi bar xam naa ni yaa ko baral xoram ma ngir ku fi saf xam naa ni yaa ko xoram yow sa murit lu mu bon bon doo ko gis mu te xam ku dul sa taalube lum jag-jag nga gis mu te xam nangul sunuy jëf te bul delloo te lëf lu nu jëf te dolli nu cant ak xéewal te dolli nu gëm yooral nu wëggal nu may nuy dab duyal nu ba nuy rembat ba far defi dex yoo xam ni day du yeyam yootal nu jàppal nu yaa xam rab wa gis fa mu ne te gumba guy rëbb buy jub rab wa fekk mu dem yeewal nu rab yi te jat koo jat ba dootu fi jóg te may nu ab dundam ak waajaayam ak mébétam te bum nu nemmiku bun koy nemmikooti nu nit nan sant muy santitam muy bég te muy bégitam defar nu ban jaga jag waajal nu ban bërëbër xamal nu ban xama xam fab jox nu ban ama am defar nu ban jaga jag waajal nu ban bërëbër xamal nu ban xama xam fab jox nu ban ama am jaayal nu ban tono fi tontal nu ban duggi nun yàlla bu nuy gis saxaaru jéeri deeti gëlëm gaa yaa ngi sànku ji tey wut mbir ma fum jegewul te mbir mi yaa ko fi yor moo tee nga far mu yërëm sëriñ bi fas naa la yéene sant cantu gu rëy ngir yaama may te ku am xel sant waa jala may sëriñ bi fas naa la yéene sant cantu gu rëy ngir yaama may te ku am xel sant waa jala may man maa fi daa jóg di xaaraane kalaaji sarax tey maa ngi xetti li ay baay ak najaay ak ndey miskin mu suufe mu bon laa won di ruujaka bay nga jox ma gaa yu ma fi ruujal bu gaaw aka bay am naa lu rëy la ma daa jortooka laa jaka wut am naa baam lu ma foogul yaa ma jox lu ma doy soril nga may lor soril may gàcce may nga ma ndam man jàqatul rusatul saa may gi may gu ni day man jooyatul meratul man xiifatul maratul saalar ja dem na ma dem kenn déggatul ma ni wuy man ñi amul won xamul won ngay xamal di xamal ba maa ngi boole am ak xam-xam du yaa di ka nay saa jëmm ji rekk laa àndal ba dikk fi yow nga soppi may jëmm yow doonax sa waaya ka jay samay moroom ak samay mag yaa ngi gemb di xëy jëm seeni tool aka bay may xëy di sant aka way ko am yi lay may te santul yéewuwul góorewul nan sant léegi te moo gën nekk ba sant di wéy la jëkk tey jile daawun gis ku sollu mbabal yaa dikk sànni mbabal jox nuy dara ki tubéy xamal ni kenn du fi nit tey jii ku dul ku la gëm tey topp say wax ku dul kii moo di dof ba di say yërëm nu ràmm bul seetaani yar di nu dal bisub la yooba te yaakaarun fa waaju la moy bu dee fi wootee ka jàngi téere ak di la yoo demal layil nu te yow mii koo layal dana yey bun def lu dul tàbbi firdawsee ka waaj aka bég bun jekki nun di la yoo yow lan fa def sunu lay yow yàlla yow ki nu yor yor ban ba boole nu moom ngir yàlla tin ko ci nun ngir yàlla tin nu ci moom yow yàlla yow ki nu yor yor ban ba boole nu moom ngir yàlla tin ko ci nun ngir yàlla tin nu ci moom te rikkitun ko ci nun ñi ñépp tin gu rafet ba noppi tinnu ci moomit yow ki ñàkk moroom moo nuy musal ci lu bon moo nuy saxal ci ndigal moo tee ñu sànkinu moo tee it ñu def nu ci buum musal ko sàmm ko biir ak biti dolli ko mbég sàmmal ko mboolem njabootam gépp may ko lu woom fegal ko lor yépp féqal koy mbégam ba ñu ñëw tegal ko waa penku ak waa soowu it ci loxoom xolam ba nay sedd xel may dal yaram wa di wér ba bis ba muy tàbbi firdaw seeki cantaki koom nay seeru faw mbégam tey dégg faw mbégam tey am lu seddub xolam tey boole ñépp di tiim koo gis na koy sant kay mokkoo ko def la mu wax di waaja kay dem a kay ñëw rekk kenn bañ a juum na diggam ak yàlla ak mboolem ñoñam ni neex di leere faw ni bëccëg ñépp sant baluum na diggam ak yàlla ak mboolem ñoñam ni nañax di leere faw ni bëccëg ñépp sant baluum na saytu cër yépp ak ngër yépp saytu gu wér te boole góor ak jigéen ak ñépp not ñu ni xiim notal ko yow yàlla ceddookub sëriñ ba ñu xëy jébbal ko jiital ko muy def loo ko def ci sagoom ñi dégg jant bi def leeni murit yu ko gëm na mujj àddina ñépp ak gaay jàpp ci moom sëriñ bi wallunu biir ak biti wallu gu neex te dal di tooyal sunuy xol xépp may nu lu neex sëriñ bi wallunu biir ak biti wallu gu neex te dal di tooyal sunuy xol xépp may nu lu neex man yeewa may mbég yiwee may mbég yabal ma ci mbég gungee ma mbég fekk maa kiy mbég fu nekk yu neex bégal ma faw te may ma xol bu sedd ci yow te def ma sab lar bu dul mooy benn bis lu la neex may mag cofeel ak rafet njort ak way ak bari xel ak fit wu rëy ak i teggiin ak siyaara yu neex may nuy siyaara yu barkeel ak addiye yu rëy yu nuy asaale bu nuy ñëw ak nuyoo bu nu neex may nu nuyoo bu nu neex ak dal bu dal sunu xel te may nu tàggoo bu leer ak ñibbi aale lu neex nu noo ngi wut pepp jópp ak ndox mu takku fi yow ba max nu pepp mu ànd ak ndox mu sedd mu neex mën ak ñi jébbale seeni mbir sunuy daba ngi dab yépp yépp na fees ak lépp lëf lu nu neex may noo te mbég mu ñu nuy ngéejoo ka ñeeti te may mboolem ku nuy bége mbég faw ak lu rëy lu ko neex dundal te dundal nu dundal xol bu nekk ci nun muy sant kay dundulee kay dund dund gu neex siyaara bii tëj ci buntub lor bu nekk te far ubbee ci nag bépp buntub cant ubbi gu neex siyaara bii ak budul bii far ci wépp naqar tefab ci mboolem lu nuy wut may nu may gu nu neex yaa saytuwaame yi yaa fiy doxi di xiinaka taw nun noo ngi taatana kay digloo ka néggandiku yaa saytuwaame yi yaa fiy doxi di xiinaka taw nun noo ngi taatana kay digloo ka néggandiku ñoo ngi di seenu mbég ak yërmaande faw ci yow dottil nu waa may tax xol yépp dekk liku fu nekk nay xiina kay taw xol yi dund ni tax ku nekk am njariñam dab yépp fecc liku xol yépp nay dund bu xol wow bu muy xawa dee bu kenn gis ndare luy tax gëm nga fedd liku noongoogu faw ak sunu bon yor nu yor bu rafet defar nu may suturaaku cant ak bu cant ak bàyyiku bu kenn dégg lu dul ak cant rekk ci nun bu kenn seere ci nun ak bon akuk xawiku na ñépp dégg ci nun aw yiw te gis ko ci nun ku nekk ñeenu nu gën mboolem ku gën kawe ko defal ci man di mal ak yërmaande saytu ma nag may def lu jub di seral sab xol ba yëkkatiku mboolem li ngay wut ci nun ak lii nu bëgg ci yow na lépp am faw nuy teewee ka fàttaliku na xol yi sedd te mboolem mbir yi jub ku ne bég nga boole ragg yi biir ak biti saa faral teggi wopp ak lor te teggi lu lay sonal di dund ba mboolem nit ñi fàddu nga dem sa yoon faral teggi wopp ak lor te teggi lu lay sonal di dund ba mboolem nit ñi fàddu nga dem sa yoon na ngay dund yàllay dund ngay dundalum ngërëm di bàddali jaamam ñépp yow la ku nekk buun te yàlla na say noon ak sa lor yépp far ni mes ba doo seeru lor doo seeru mukkati benn noon sa donga yi seeni fan na gudd ñu am njariñ te dolli ku wërsëg jópp am ren sarax bu doon fabal suusi sépp ak nit ñi séddale say murit ku dul sa murit nay dox di ñee sa murit amiin nga say soppe sut mboolem sa bañ yépp fopp fan nga mujj fi ñépp ak gaa yi lay dimbalee kamiin safal nu safal mboolem murit yi nu bokk saf di wax wax ju saf tey dox di jëf jëf ju saf ju niin na moy yépp far may yépp dolli ku ñépp jóg te jag faw may yaa ngi ku bañ ban ba doo ci fóon danoo wara booloo sant cantu gu am xoram ku am waame boo santee ñu dolli la ndox te xiin te am nanu waamee mucc ak jàmm ak njariñ bu nuy sant am ndolleen tawat daala mat ni ñuun ku cantam ga dul dog mukk waamee mayam du dog dafay jàpp ndëndum njàmbat ak ner di bëgg jiin faral sàjj yow miy làmbi cant te jéema hub defal cant sab dëkk ak sa mbir def ko fawwu yoon faral sàjj yow miy làmbi cant te jéema hub defal cant sab dëkk ak sa mbir def ko fawwu yoon lu yàgg-yàggati bul ñaawal sa njortul yow sab sang am ne yéwén man lépp yéene nga am lu yàgg-yàggati bul ñaawal sa njortul yow sab sang am na yéwén man lépp yéene nga am loo man di bëgg bu jëpp loola jox la ko it dalaa fa soo jox lu gën far loola mbaate kemam yow sant rekk la war ngir am nga jagle gu réy gu ñépp ngéeju te day jëmmoona fawwu kanam doo daanu mukkati yow yàllaa la fab jëme kaw ak yonnenam ba na sam xel dal nga dolli ku gëm li ngay mébét ak li ngay déeyaale waxtu wu jot xamal ni am nga ko am nga yiwu xel nara dem yiwoo gisul ak sa bët biit asal mu ngi ñëw foo yéggulit lu mu jëm-jëm kaw asal ca nga jëm li tee nga gis lépp doo gis gubu ñor te jotul waxtu ñoram na nga bay toolum ndigal te gërëm ku bay ndigal ba mu ñor doo jeele mukk ngërëm doo jeele it wenn yiw foo nekk ëpp fa ndam lu nekk am na barab loo yegg nag barabam gis loola loo bëgg yow waaxul ba jot barabam ku xes ba jóg jëm ci péey bi yàlla loo amul it muñal téwéy rekk boo yeggee doyal ko ndaxam sëriñ bi yal na nu may ak yegg dëgg gu wér ci boppam ak ngërëmam ak dëkk ci ndigalam te yàlla nan may rafet njort ak di jëf lu rafet tey sant kay bàyyi koo kay yokk faw waka dem te yal na dundal sunuy xol nangu jëf ju nu jëf yaatal nu faw ci boppam may nu dëgg xolam te yàlla nan ubbi lit buntum ngërëm bu nu aw ba jiitu képp ku dee faa dox di yéemi mbiram te yal na jiitali taw féexa nga nee la ki mbég jébbal nu faw te may nuy kër yu jag aku ñam te yal na jiitali mbóot ak barke dëgg ak yiw jébbal nu faw te yet nuy taalubee ki dërëm te yal na jiitali mbóot ak barke dëgg ak yiw jébbal nu faw te yet nuy teelu beeki dërëm te yal na jiital yi mucc xiiwal ak gani mbég jébbal nu faw te may nu jag safal nu xoram te yal na jiitali cantam yépp ak yi ngërëmam jébbal nu faw nu def soppeem ak xaritam te yal na jiital lu dee faa dox di bëgg ak a wut jébbal nu faw te may nu dégg jépp waxam te yal na jiitali xam-xam nag yu am bi njariñ jébbal nu faw te dàkkul nuy sobeeki tilim te yàlla nan may nu xam mboolem lu jomb la xam te yàlla nan may nu am mboolem lu jomb la am sëriñ bu lay ubbi biir ak biti ngay niru dex jox lay dërëm teg ca ay fonkal te gàllu la lëf sëriñ bu lay ubbi biir ak biti ngay niru dex jox lay dërëm teg ca ay fonkal te gàllu la lëf masee fu koo dégg ci maam ak mamar ci ba tey lii ban ba daala ko man lii ban ba daala ko def sëriñ bu nekk da daa jox yàlla lëf dese lëf sëriñ bi jébbal ko léppam teg ca jébbulu faf dañuy joxey asaka kay dox di sàkki sarax mu jébb lépp jaagam ak boppam di sant ka jëf sooxal nañuy firi ñépp ak gaaya ñuy firi lit rusloo na buur ak i dak soofal na képp ku saf moo nangu cafkal yor moo nangu bayre bi jël moo nangu barke bi yor moo def lu jar jërëjëf moo boole xam-xama kub am am te sañ mën a def wenu araf mën na caa faj aajo sax te du raf bu dul ko nag yaru waayam dootu woppaka dee bu dul ko nag yaru muy dekkal ñu dee ña ci tëf ab xej ji def nii ca gën ab xej ji day mën a def ba noppi nag bañ a def ngir moytu rekk a suruf ab xej ji day xam te faf nag mel ni lëf la xamul man lëf te mel ni mënul def nit te mel ni ku dof koo seeru ak xej ji lay wut waaye xej ja jafeñ ku xej ji boo sàgganee xëy daanu mbaa nga tërëf sëriñ bi may nu jigéen goo xam ni am na njariñ te ñàkk lor faw biir ak biti dolli nu lëf man ndaw si jox na ma ndéegoo kub añ ak njoganal te may na ma reer akub leerit xanaa jël a des man ndaw si jox na ma ndéegoo kub añ ak njoganal te may na ma reer akub leerit xanaa jël a des can rekk rekk a ci des jël ndam li rekk a ci des fab yóbbu rekk a ci des muy togg ñépp di mus maa ngi di sàkkuk juboo kuk jur ba yegg lerem teeggilil sama ñépp ak jàmm ñépp di gis na jàmm am përe jóg mboolem sunuy pexe jub mboolem lu nuy ñaanakaay bay nangu ñàkk ni mes wësëg wi sottiku ànd ak diine barke bi ñëw ku nekk am ngërëm ak mbooloo ñu faf di nu wis sëriñ bi far mu mbooloo far ko aw ndigalam muy dolli ñépp jur ak xër wunti mooy ni taras ku nekk aw ndigalam jébbal ko fawu mbiram jàppuk juram di ko jox tey dëddu tàgga ko xas sunub diggante ni nàññ ak jàmm xol bu ne bég nuy dund kay wér sunuy ndollen ni gàññ ni xus ku nekk génne këram ànd ak ngërëm ni jalañ joxeek juram ak mbiram ak waa këram ci lu fés nu gudd fan wér te am ak doylu ak yu nu doy nit ñépp bokk nu ñee nit ñépp bokk nu rus mbooloo yi wut si nu nuy booloo di wut si këram nuy sant muy sant nuy santante ay ni melas nu teg gi lépp lu dul mbég dox ci mbég wéye mbég ba yegg ci mbég yu dootul jeetalëf du ca des sëriñ bu mat ba ñu daa sakkoo ka bëgg a ngi nii njariñ lu rëy lañu daa sàkkoo ka laaj a ngi nii sëriñ bu mat ba ñu daa sàkkoo ka bëgg a ngi nii njariñ lu rëy lañu daa sàkkoo ka laaj a ngi nii yàllaa nu jox bii sëriñ ak lii njariñ nanu jóg tey jéema sant bu wér jàmm ngënee la ngi nii sëriñ bu jar xëy ni mes jóg dugg àll di wéy di laaj a kay wut ba am téeméeri at mi ngi nii njariñ lu jar laxasuy raflee ka xiif ak a mar ngir bëgg koo am ba dee faf jot la it mi ngi nii noo boole nag bii sëriñ ak lii njariñ ci lu biir te kenn réeru ci ay bokkam lu màgg a ngi nii ak may gu tedd a ngi nii ak may gu dijj a ngi nii ak may gu baax a ngi nii ak may gu sell a ngi nii ak may gu wóor a ngi nii ak may gu leer a ngi nii ak may gu dër a ngi nii ak may gu woom a ngi nii ak mooy gu tuubee fa ngi ab lar bu tuuba ngi nii ab lar bu réccoo ngi nii njébbal gu wóor a ngi nii sëriñ bi jox naa la nag saa bopp jox gu rafet teg naa ca it lu ma am saa lépp lépp a ngi nii fasootuma karabaane kay werante ci lëf fasootuma gàntu lëf saa dëgg dëgg ngi nii dëral nu këngati feesal noo ki ndimmali mbég yu dee fi gis ak yu deeful gis lu duufa ngi nii yëfal mu fal mu te may nub yar ba yar du nu dal tey ak ëllëg man la may sàkkoo kañaan a ngi nii seytaane moo bon ci nit day sàkk wunti yiwam tey ubbi wunti lorom yal nan ca yàlla musal seytaane moo bon ci nit day sàkk wunti yiwam tey ubbi wunti lorom yal nan ca yàlla musal koo fuy teral ak a teg foo xam ni yeggu fa sax mu yot la ful la akuk senk ak rëy ak lu jubul ku yoqi rëccu taxaw dootoo sawar ci mbiram dootoo fexeeti mbégam muy door a gis lu ko dal sëriñ bi dàkkul mu ibliis ak loram bala moo ñëw ak loram ne ko teggil jëm fee ne ko xel fam naa la man ñage saa bopp ak ñi may defaral fam naa la it ñage mboolem kuy seral sama xol tàbbal nu ciy senga kiy baryeeri cant yu wér te def ca biiri njariñ yoo xam ni dal nañu xel musal mu faw ci yokkat ak lu koy taxa def te may nu nag nuy juboo kay jub te faf di jubal jubal nu may nu ñu jub ñuy jub nu jub di juboo tey bokk sax ci ndigal ngay boole ñépp bégal musal nu ci ndof fegal num xel mu gàtt mu bon te def nu nit coy yi kuy santuk mayam akaful wéral mu may nu wéral ak gaa yu wér yu wéral ak may gu wér cëng biir ak biti boole nu fal mun ñépp takkal nu ndombay tànk faw te leeral nàññi nag sunu digg ak yow ñu far mu safal nun ñépp takkal nu ndombay tànk faw te leeral nàññi nag sunu digg ak yow ñu far mu safal safal nu sapp te may nu fan wu guddaku yiw nun noo ngi lay sant ndax yaa mucc yaa nu musal na cant ñëw ñëw gu seddub xol gu ànd aku yiw te fekk fi yiw te sax feeku yiw ak sunu mbég nag cant ñëw ñëw gu seddub xol gu ànd aku yiw te fekk fi yiw te sax feeku yiw ak sunu mbég taxañ ko benn nu gis jébbal nu faw nu jël loo xam ne lii nar na koo dog loola jàpp ko dog lu jëm ci nun ci ngëneel ak mbég lu koy xala dog dal nuy dogal loola tis tis yët nu cant gu mag loo dog mu dog loo dogul nag kenn du gisu lu ko dog dogal nu luy dog sunuy mbég jox nu dog bu nu log yewil nu lépp njariñ dal koy wëtal si fi nun mboolem njariñ yépp ñëw seen nas njariñ bañ a gàkk yaa nekk fépp di dindee kay defit lu la saf loo bëgg a def doo ca am koo cay xalaat ak a nekk mboolem lu nuy bëgg kuy bañ ak ku bëgg na am lu nuy bañit bu mu am yaa dàq ñoddi te fekk ñoddil nu tey aajo ji nuy aajo léegi mu ñëw dal nuy fegal nag lu koy tee ñëw mu wàññi ku teg ku nekk lew na la ak mboolem yëfam yamu yor yow loo dogal ku ko bañ aw nag la mat na ni ndig koo bind sàkkal nga ko nos saytu nos bate koo fiqum nosam mu ni jaasit faw yaa mata wek fiqal nosub kunu aajoo gis mu fëx ni jalañ di sant faw wa kanaa moo jaalu xew ba ma jóg na lépp lëf lu nu saf ak képp nit ku nu saf xëy xëy mu sell mu lor nekkul ni jaasa ki mbég koo xam ne nee na murit laa mbaa mu fas ko na jóg te diglu wax jile may wax ndax mu làq ngërëm koo xam ne nee na murit laa mbaa mu fas ko na jóg te diglu wax jile may wax ndax mu làq ngërëm bëstul taxaw ne te tey jii yaari gaay a ngi nii ku nekk a ngiy peese tey yokkal përey xaritam mareel dafay peese ban bay peese kuy wuti ndam na jox morel gerte jox nag ban ba ay dërëmam ku peese nag fa morel jóg teg gi ban ba di wéy yor xaalisam fu mu jëm doo seeru muy ami ndam ku bëgg gerte ki tool ak gaayu nangu di wéy na jox sëriñ bi le ren ngir yàlla mépp mbayam ban bam nawet la bu nangu nangu loo ji mu sax te loo jiwul kët du sax ruujal lu bon te ji gëm mi ngi di wooteeka dundal diine nan wuyu nun te dëddu kër yile ak jur yi te jëm fu mu jëm naafiq baaxul te naafiqi kanaa sama ndey ak naa samay bokk ak kër gee matee mën a dem ku gëm boroomam ndey ak soxnaa ki baaye ki jur du tee mu dem ku gëmul wax ji na laaj ku xam moo jaaku ndey ak i baay ak soxna dog ba demul bu dee lu muy lay sangam bee mu mooy ndigalam kuy topp bakkan ak yi bokkam ba dee dana xam ni yàlla bindu ko ngir bokkam ya ak bakkanam mu daaralanteeki baayak ndey te jaamu ji yow ka bind baayaki bokkak ndey ba làq ngërëm mu jóg defal saa xarit bii nag lu ñépp di gis ngir ab xarit ku ko am war koo defal lu ñu gis ma jóg defal saa xarit bii nag lu ñépp di gis ngir ab xarit ku ko am war koo defal lu ñu gis ma jox la fi dénk tey jii yow Muhammadu Géey boo xam ni moo gën ci yow foppi gëléem ak i fas notal bakkan bi te farloo farlu yow ci ndigal nooral ci yàlla sa diiru dund rekk ni mes ak dund yombul yombul ëpp naa fa élëf na ngay waxu yiw a kay diglee ka def ak a fas jàngal te jàngale jàng ak jàngilee gën a rëy ak pay te pay ga ku dul muñkat bu rëy du ko mus ku mën la muñ faw waxtaan ak dox ak gisu nit doo am ci yàlla lu ñuy naw maa ko waxa ci lu fés ku mën la muñ faw waxtaan ak dox ak gisu nit doo am ci yàlla lu ñuy naw maa ko wax ci lu fés yow sa murit na rafet say pas-pasit na rafet loo man di wax ak a def fawit na mel ni wurus te dëgg waxtu jot tuubal te sant bu wér ab lar bu dee tuubalub sangam di sant du rus teb lar bu nekk ma ngaa ki may ma ngaa ki moyit te may ya sant ca des mooy yépp tuuba ca des nekkal di sant ka muñ tey réccu lépp lu bon ndax yàlla ngay waaju doy lay may te set ni weles sëriñ bi yàlla nanu may ak mucc may nu njariñ ak fan wu gudd akuk wér teg ca nag dinu wis muhammadoo dénk baa ngi jàpp rekk a ci des yàlla nay sunu yiw di saw yiw tey texe ku ko gis na fukki waame yu ànd ak barke xëy ni yëreet rangoo ñi mboolem ñi ni bañ ñépp xëy ni yëreet na fukki waame yu ànd ak barke xëy ni yëreet rangoo ñi mboolem ñi ni bañ ñépp xëy ni yëreet raw ñépp gën ñépp suuxal ñépp dëkk ca kaw sañ man te xam gudd fan am lépp sotti ca leet nun ñépp boolen jox yi waame jox gu rafet nuy weyte saa sunu jot gis mbég mu rëy ni jumeet xaral nu baaxati xar baaxay sa mbir xaratil jàppal nu baaxati nga boppam paxar ko xareet xaral nu baaxati xar baaxay sa mbir xaratil jàppal nu baaxati nga boppam baxar ko xareet ku nekk naa ci ka yéemoo ka mu ñàkk a gëm tey sant kay soowa kay saabal baxaw ni tareet te def ko xar baaxi jàmm ak mbég yu ay bañ a am te ñépp ñeenu ca bay booloo ko ñëw dinu seet foog cant nekk ak njariñ ak barke ak sa ngërëm ak xol bu sedd ku yiw ngir yàlla nee ko ru seet tabal ci nun faw biir ak biti fal mu bu wér te def nu faw ku deeful wax ci lenn ti déet fegal nu kuy gàntu faw ak ngàntam ak xadadam notal nu ñoddil nu kuy bañ na nga wàcc ci mu wéet ñoddil nu yiw wu nu faatoon ak njariñ lu nu raw mu daldi ñëw ku nu faatoon it na xëy ni dareet safal nu faw ni suukar ñii di macc ak a bég ñee it di meccoo kamer seenum tuñit ni lu seet lu nu raw mu daldi ñëw ku nu faatoon it na xëy ni dareet safal nu faw ni suukar ñii di macc ak a bég ñee it di meccoo kamer seenum tuñit ni lu seet saytaane laa jublu ngir suy gis ku am mébétam mu daldi gañ mboolem lu daa jafe ñaŋ mboolem lu daa tëwu nit na yomb faw wu fi nun bër yépp ñëw ni ñareet ni sa digg ak sëriñ bi mel sedd na xol ni diggam ak yàlla melit sedd na xol sëriñ bi am na la nga am ko bu rafet am na boroomam it mu am ko bu rafet boo ko gisul muy jàq kay tiite kërët bu ñu la gis ngay jàq kay tiite kërët koo nga bu wér bu daanuwul doo daanu bu daanu mukk sab sëriñ du daanu loo man di dégg ciw ayag lu dee fi bañ dana la mooy tey ak ëllëg dal ña la bañ déefu la gàntu sam nawet du gàntu doo ñàkk mukk doo dajee ki nattu sant la war sag maasa ngi jaj ak a gor ñu may la faw dex gudul ferati far sant la war sag maasa ngi jaj ak a gor ñu may la faw dex gudul ferati far foo mën a tee nekk mu def njëndi lu rëy dëkk bu am ndox ak dugub faw mu rëy foo mën a tee nekk mu def njëndi lu rëy dëkk bu am ndox ak dugub faw mu rëy jamkat bu dul moye ngee saytug fital gu ñu sox tarab yu duufa ngi nii lee ñépp am lu ñu sex na njortu yépp rafet xel yépp dal ku ne bég di seenu jàmm ku yiw tey farlu farlu gu sax bu njortu ñaawati bum xel génn lëf du nu dal lu dee fi bañ teggi nay wey faf ni meng ci pax ak cant war nanu ngir jamkat bi day jami lor di jam njariñ lu ci jóg boppam ba toñ ni rajax lorang njariñ lu ci fëx muy fàdd ñépp di gis njariñ du raw lor du ñëw bii daan na yal na fi sax moo nuy fegal rabu lor moo nuy mayit rabu mbég buy dund ñépp di bég nuy dund lëf bañ a nax fu lor ni ñokkete muy téqub soxam mu ni mes faas njariñ feeñe muy ñoddee kafab dina jox man génne naa ci lu dul yow faw tàbbi ci yow te génne naa ci samay mbir lépp lëf lu la mooy man génne naa ci lu dul yow faw tàbbi ci yow te génne naa ci samay mbir lépp lëf lu la mooy sàkkal ma nag pexe maa ngi aw ma lëf lu la mooy te bëggumaa am lu dul loo xam ni yaa ma ko may setal ma wicc ci mboolem lépp lëf lu la mooy setal ko wicc ci man def ma murit bu la doy sunu diggante na gëndoo benn feese ni dex te leere nañ ñi ni bëccëg nuy bérax bañ a fay na buumi cant yi wér yoo xam ni yii duñu dog tukkee ci yow ba ci nun nuy sant faw waka ngoy ngëm naa ci yow mooy ci yow ci yow jëm naa ci yow ja ci yow yaamante yow rekk laa def loo defal ma lu rëy ne naa yalax lu la mooy muñ naa ko muñ gu rafet wan naa ko am doddu xañ kob xar kanam ne la day yow rekk laa dese tey fat naa la fab lu la mooy jañax ca biti mu génn ak mer di gàññ kewi ku ñàkk laa ku deseetul lëf te bëgguma lëf lu dul yow ak sa ngërëm feesal nu dell ki may doylul nu wëllisi nit doylul nu wëllisi yëf te may nu teenum ngëneel ak mbég bu dul xamadey tey ak ëllëg lu nu fuy aajoo ka soxla fajal dàkkul ni it luy waral nuy dox di nii naka lay mboolem sunuy aajo ak aajo yi ñi topp ci nun fajal nu yépp te dàkkul ñépp tiisa ku ay mboolem ñi lay topp seeni aajo faj ko bu wér te dàkku gépp tawat fekk luy waral nita mooy yow yàlla won mu sëriñ Tuubaa mu tedd ma tey te may nu ceg leer akuk ceex ak mbég ak lu nu sax ngir yàlla wan nu ko wan guy tax nu sant mu bég nuy bokk sant ka bég yonen ba boole nu faf sëriñ bi yàlla na sab xol sedd guy ci nun te yal na mboolem sunuy xol sedd guy ci yow sëriñ bi yàlla na sab xol sedd guy ci nun te yal na mboolem sunuy xol sedd guy ci yow nu ñépp yal na nu sax ci jub te mel na la saf ngay sant faww ci nun nuy sant faww ci yow sëbbul ni cee ba mu tooyal xol yi xeppati nag ndax ñépp dolli ku gëm xol yépp jublu ci yow nay mbég di tukkee ci yow mi faww jëm si ci nun nay mbég di tukkee ci nun ñi faww jëm si ci yow may nu juboo fàwwa kuk soppante dëgg gu wér te may nu ngir yàlla taw féexit gu yéemu ci yow bënal përëg sunu digg ak yow ba yiw wi ci yow diwal wali ñëw ci nun nuy ànd dellu ci yow feesal nu dell ba nuy rembat di feesalu nit di mucc kay musle tey yokkoo ko yokku ci yow yàggal ci àddina boo yàggee ci àddina yow ku nekk am mébétam nit ñépp sant ci yow yàggal te yàggal nu yow sag yàgg am na njariñ yal nang fi yàgg nu yàgg ak yow te dëkk ci yow yeesal nu peq te yeesal peq nag sunu ñoñ te yeesalal peq mboolem gaa yi topp ci yow may nu daloo bu nu boolee kiy sagara yi nu yor bàyyil sunuy sagara nun ñii te dolli nu yow yow mbàkke ak dex nga teg dex lëf du tax mu tilim sunuy moy ak sunu bon bon yépp xañ na ci yow bul jàpp mukk sa njaambur gi ci nun yërëmal te fam nu nun ñépp far tàbbal bu sell ci yow loo def lu dul jàpp sa njaambur ci nun mu woyaf loo man di def aka wax yaatal nu faww ci yow ubbil nu ngir yàlla ak yonen ba wunti ngërëm nun ñépp nuy aw ndigal delloo ko sant ci yow xalal nu xàll wu tukkee nag ci yow ba ci nun nu yaw ca xàll wa ànd ak xol yi sedd ci yow luy tax sa xol ak sunuy xol sedd def ko bu wér sa xol ni guy yi ci nun sul xol ni guy yi ci yow luy tax sa xol ak sunuy xol sedd def ko bu wér sa xol ni guy yi ci nun sun xol ni guy yi ci yow sëriñ bi saa xol bi yow mi yaa ko dëkke bu wér saa xol du kër gu la mooy saa xol du karlu la mooy bu jant fenkee ma gis man mii nga yendu fi man te buy soyit nga fanaan ak man ba guddi géwéy yow laa di làmbaka daj yow laa di laajaka wut yow laa di jeex aka for yow laa di tagg aka way yow laa di seet aka gis yow laa di gont aka xëy yow laa di xool aka ree yow laa di sant aka roy yow laa di dégtalu nit yow laa di bantu sa xet yow laa di xaaru desit luy des fabal di ma may yow laa di topp ak a gëm yow laa di yéem ak a naw yow laa di faale ka jëm ngir yaa di waaja ma doy yow laa di yor fu ma jëm yow laa di jàpp ak a yor yow laa di jox lu ma dul jox mbàkke baaye ki ndey yow laa di sàkku sa mbég ngir bëgg a jot sa ngërëm yow laa di daw ku la moy yow laa di daw lu la moy yow laa di sàkku sa mbég ngir bëgg a jot sa ngërëm yow laa di daw ku la moy yow laa di daw lu la moy li nuy dajee laka seddu xol te seddu yaram te seddu bët rëy fi mbooloo mépp bett ku ne li nuy dajee laka seddu xol te seddu yaram te seddu bët rëy fi mbooloo mépp bett ku ne bi far nanu yaatal fam nu boole bu wér ci waa këram far nu sàkkal as mbarab sunu ne yàllaa nu bett ki mbég yàllaa nu bett ki may yàllante gaa yenu daa ñaawal ñu xam li nu ne mboolem ku daa bañ nu am ab làmp janta ngi nii mboolem ku daa bañ nu am ak bënn géeja ngi nii alxamdulillaahi raw naa mucc naa texe naa am naa li may sàkku biir ak biti wàll gu ne raw naa lu bon la ma daa daw jot ngërëm ka ma daa dab jiitu gaaya ma daa raw tey mbégum fu ma ne jàmm ak tiraanga aku yiw ak mbég mu ànd ak i ndam ak barke ak bayre laa làmboo ki may yu gëne sëriñ bi def na ma fawug dex barab bu ma ne ñuy naana kay fóota kay duy tey yenoo ka yene danaa ko sàkkul ngërëm ak xol bu sedd aku fan wusit ci fan yépp ak ndoleen lu ëpp lu ne te mbàkke yal na fi yàgg jépp waa ju ko gëm ju koy siyaaraaka dolli cant waxtu wu ne te mbàkke yal na fi yàgg jépp waa ju ko gëm ju koy siyaaraaka dolli cant waxtu wu ne feesal na kër yépp dell ak jur gu lew aku nit feesal sunuy xol akub xam-xam kilee matane mboolem sëriñ saa ngi saf ay donga ngir ni mu mel tuutal na mboolem ku rëy suuxal na képp ku ne mboolem sëriñ saa ngi saf ay donga ngir ni mu mel tuutal na mboolem ku rëy suuxal na képp ku ne